li ñu dajale fii dafa nekk comme chaque veille de Magal de Touba ak du grand Magal de Touba euh, dafa dama baaxoo di def euh, di woy Serigne Touba ci li nga xam ni mooy veille Magal bi Magal gii di ñëw euh, ba ma ko tàmbalee def ak léegi ren mooy ñetteel bi ma nag sasoo nag saa yuñ ca tolloo rek ma génn benn single jagleel ko Serigne tubaa ak njabootam gépp Euh, titre bi mooy jasaaka jasaaka la tudd li ma ci bëggoon a wax mooy rek euh, wàcc Sëriñ Tuubaa ci ay jaar-jaaram ah ndax dafa xare xare ba dànn bi mu xaree ba daan dem ci tukki bu sori ba ñibbisi bi mu ñibbisee fii tamit euh, yàlla def mu santaane lépp maanaam dafa wax ni lepp luma doon ñaan sakku ci sa borom ci tukki bi ma tukki won ci geejgi ci la ko borom defale mu wax ni nak waxtu wu del cete na ma ñëpp sant la yalla sa borom te cant gi bernde la alquran jang jàng euh li tambale manam ci ci ci ginar ba ci gilem lepp lu ci way man rek na ma ci sant la yalla sa borom waaw ci bir ci lolu nak ci la doon dal manit en tant que taalibe ah manit wax dëgg yàlla ci wàll bi ma féete man it ah man it ma ma koy njukkal di ko ci sant. defe naa ni liggéey ko la ko yombal moom moo la ko xañ ndax lu mel ni aar loolu defe naa ni amul lenn lenn lu ci yomb ndax artiste boo laaj benn baat bi rek lañ lay wax benn kàddu gi aar moom dara yomb ci lépp jafe lépp metti ndax répétition la laaj. te répétition léeg nga juum léeg nga kii dégg ba keroog muy doog aw yoon kon donc amul daal boo ko seetee daal ci affaire art amul ci daal lu ci yomb. artistes yi normalement autorités yi dañ leen di war di jàppale. di leen dimbali bu ko defee ñuy mën a euh, jouer seen rôle. parce que wax dëgg yàlla benn loxo du tàcc. lu kenn man ñaar ñoo ko dax nit ki mën na indi xam-xamam. ah ci wàllu moyen humain waaye ci moyen financement il faut que autorités yi rek ñoom ñoon ci mën a jàppale ba tax ñu mën a jëm kanam ba lu ñu sumb rek daal di koy mën a daan